سلوم سيخ الظل ونبق حافظنا أها هو سيدنا هو الخير شيخ الخليفة لماذا يا رجال إلى وبي أسفر يقوم وامسك الخالق نظام عاقبنا والفوز بنا هو امين جلد ورم لرقنا هذا جيب يرجع في الالعاب وبي اسفل هو سيدنا هو أول te ana ku sopp yonent ku sopp yonent bi defal nit ñi màggal ko waay soppe yeneen yaa ngi jaar maa di lam فن فارين عن حرجا ولا خاد مريجا قلبنا وهو سيدنا هو آمن من جرده شيخ الخليفاني المتان سنين واخي كرمان وبحرمة ما وهو سيد ما هو أجمل ما ترى ورم لرقنا كل الحمد والسرائر على من مروى عجبا الأيمان شيخ الخليفان هو شيخ الخليفة المغرور خلخي نسرائي e ana ku sopp yu ñu ci defal ni waaye ñu magal ci waaw soppey bay moodu yi xaali rabbi lam yafaalu wa biyal wana معجزا موسع خليفة فقها فتدعاه شيخ الخليفة هو أجل ترنو شيخ الخليفة نيم برم لرغنا إيم أرجو منصور بين إيمان بعيشين شيخني إيمان بعيو الأمين إيمان أرجو لقيتك موتا كرما بطريقتنا نعم bismillaahi bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu sant yàlla julli ci yonent bi sallallaahu alayhi ñu ngi kontaat di rafetlu waat di yeestu waat ci biis bi nga xamante ni mooy bis Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ngi ñaan yàlla luñ ci jaamu yàlla nañ ko yàlla nangul vraiment ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa képp ku ñëwoon yàlla na yàlla fas sa aajo ku bëggoon a ñëw te ñëw yàlla yàlla fas sa ajo biir ak biti saayiran wa na ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala gàmm gi yàlla bu nekk si mujj gi jàmm oto yi yàlla nañ ñëw ci jàmm yàlla nañ dellu ci jàmm yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu ngi koy ñaan suñu borom taw accident yi zéro accident yàlla nañu ko yàlla defal su ko defee ñu ñaan taalibe yëpp ni ñu koy defee ba ngoon jotee gàmmu moom nii dong la boo ñëwee wax la sa yoon nekk di def lu baax di jàpp di julli di wér di di naafile ba guddi mooy guddi mooy guddi yonent sallallahu alayhi wasallam su ko defee lii mooy juddi yonent sallallahu alayhi wasallam bu dellu see suñu mbokk xaadir yi ñu ne ñoom dañuy ngénte comme samedi bii di ñëw bu dër see la Ndiassane yàlla nañ ci euh, yàlla nañ ci egg jàmm ba génn ceeg jàmm ba ñëpp ñëw mu jaar fa daan jaar ñu ngi ñaan xalifa général yi fi jógee yàlla na leen yàlla jégal xalifa général yi fi jógee yëpp yàlla na yàlla yokk seen leer di ñaan sunu borom ñi fi nekk yàlla na leen fi yàlla yàggal ndax ñooy gëdd di islam yi te l'islam jamono bu jot am nañu ne ci bopp bi ñooñu nag yàlla na yàlla teg ci ñoom loxo yàlla sa teel na ci ñoom loxo waaye yàlla yàgg te mu dëgër lool te kenn bañ leen mënal dara ci kàttanu yàlla su ko defee ndax li ñuy def mooy yoru ni àdduna bi l'islam moo fi nekk l'islam boo ci nekkul rek religieux boo ci nekkul rek nekkoo ci dara nit dee ragal yàlla tey jaamu yàlla te bañ di ko waxtu di ko bañ a di ko bañ jëfee su ko defee ñun lu ñuy jub rek ci gàmm gi dara mooy suñu xol dafa sedd guy waa ak ci wax dëgg yàlla yonent bi yéen ñu ngi ñaan yàlla ngeen dem ba am ay télévision yorul jeex yoo xam day ñëw yàlla barkeel seen liggéey parce que gis nañ ni ngeen di liggéey di waranteeru di liggéey rek te yàlla tax waaye yàlla moom ma ngi xool di ko yàlla mi nga xam ne ma ngi gis yàlla na yàlla jàpp ni jàppale ñëpp te jàppale na leen ndaxte boo xoolee ni benn waaye dañuy waxtaan ma ko man ko mun dafa bëgg milliard man ko am nga milliard mu ne su ma ko amoon dootuma génn man ko sa ñaari bët yi ngay xool moo gën milliard man ko xëyal dem hôpital am na ñoo xamante ne denc nañu milliard mais dañuy fajo pour mën a gis te gis kon bu la may wér desiloo dërëm yal na yàlla may wér ak fan gudd ak wér di ñaan yàlla dal bi yàlla na ci yàlla gën a jàpp jàpp ni jàpp ci dal yëpp ba ku ñëw yàlla na nga dellu jàmm ñu ñaan na nañ ko daan doxal bëgguñu kenn ku fi jënd dara wala kenn ku jàmbar dara wala war nga sax bëgguñu ko ko naan dañu bëgg def yëpp di leen jox ndax yonente sallallahu alayhi dañ koy gëm dañ koo gëm ñun duñ ko tudd dañ koo gëm di ko jëfandikoo di jëfandikoo salaatu faatiha moo tax ñun amuñu benn waxtu ñu ñaanal seex Seydi Hadji Malick moom mi nga xam ne ginnaaw yàlla gàmm yi buñ ko wax moom de fii senegal yàlla na yàlla yokk leeram ak njabootam yëpp ndax liggéey bu mag bu mu def fii liggéey bu mu def yàlla nagul na ko ba ñëpp gis nañ ko kon daal ñu ngi sant yàlla di ñaan xam ne dépasse yoon dépasse gàmmu Tiwaawan bu ci kenn jàmbat ay doomu adama yàlla moo yor yàlla moo moom nit mën mënta yor boppam ba yor keneen yàlla moo ko yor kon lu ñu am nañ ko bokk nit ñi te jàppante te wàcce suñu bopp man boo wàccee su bopp yàlla yéegal la yàlla nañu yàlla boole ci ñëwaat ci seen bopp ndax moo am solo leneen lépp day jeex adduna bi dara desatu bi mais am na lu des mooy lu baax te nit buy xëy dox war na bàyyi ñaar ñaar Seydi Mahamadou Mansour ne nit na bàyyi ñaar man ko ñaari mu ne ñaar sa ginnaaw kii day bëgg nga réussir kii bëgg nga nga nga nga am tolof tolof su ko defee ñaar ñu nag bàyyi leen xel ñoom ñaar ñëpp rek ki bëgg mu réussir sa xel na ci nekk ki bëgg nga mu am torof torof boo doon bàyyi xel ñoom ñaar di nga yegg fa nga jëm kon yàlla na yàlla dafa jàmm maam fay kontaan nañ baax yàlla na ngeen yàgg ñu daje fii vraiment mun mu ren fay ndax ñi doon soxla dañoo bari moo tax mënuma tuma taxaw di wax dara kontaan daal yàlla na yàlla baax incha waaw maa ngi déglu Sénégal bi di sant yàlla bu baax di sant di sant sama ñaari waajur di ñaanal sama yaay fa mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm tëdd ba xaw kaa jël ñaanal sama papa sama rakk yi sama soxna papa yi sama yaay di ñaanal Sénégal yëpp vraiment di am contentement bu baax si gàmm gi waaw di ñaanal xalif général di Tijaan sëñ Babou Sama Sow yàlla ci yàgg loolu tëwéer gàmm gi neex na macha allah am si taxawaay bu rafet xam nga am na taxawaay bu rafet lépp loo xam ni bu defoon si benn defoon ko fukk dugal ko defoon ko ñaar fukk di ñaan yàlla yàlla ko yàlla teewee ay at at si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw macha allah moo dugalee ba xam moom si si wàllu développement ni mu mën njaboot mu bëri lay dimbali si wàllu terrain yi loo am boo ñëwee am kër dina la jàppale ba nga dina la may ciment dina la may fer si lépp ba nga taxaw moom bu sundaa Sénégal jeunesse bi am kër incha allah rabbi waaw social moom Serigne Mansour ko digaloon moo koy def moo tax fu mu seen koo xam ne bu ma ñëwee di ko gisal bëgg kër dimbali ko rek di ko jox teere jox ko jox ko jox ko ciment suñu bëree bëri bëri li nga yëg du ma ko yëg moom lépp lu xam si biir Tivaouane lu may dox moom maa ngi dox bu dem kër Serigne nag yi maa kër kii kër si waa kër waaw message ma jox jullit mooy ñu ànd taxawaay doon bokk ndey ak baay xam ne ñëpp ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah lañu wax ñu bañ a xaajale seen waaw. waaw. Awa Khoule laa tudd dëkk Kër Massar ñëw ci bés bi gàmm gi kër El Hadj Modou Khoule di wax ne El Hadj Modou Khoule kat xanaa dañ koy ñaanalaat fan wu gudd ànd ak wér. ndax gàmm gi lu mu ci daan def rek bu daan def fukk rek def na ko tey ñaar fukk ñun ñi fi ñëw dooni mbokkam xam nañ ci dara alaaji Modou Khoule lekkul bàyyi kenn alaaji Modou Khoule boo xoolee ay xale la gën a bëgg ji Modou Khoule bëgg nay doomi ndeyam jàppale nanu tabaar fa kàlla macha allah alaaji Modou Khoule lu doon def ci tiwaawan rek di ko def ñaar fukk def na ko ñeen fukk leer na ñëpp kon xanaa daal dañ koy ñaanalaat yàlla gën a guddal fanam yàggal taxawaayam barkeel liggéeyam guddal fanu njabootam bàyyi kook ay soxnaam bañu raamaan ci barke baayam liggéeyu ndeyam waaye nag alaaji Modou Khoule mii mooy alaaji Modou sëriñ Serigne mooy taalu bi sëriñ Mansour si ku ne xam na ko ci Tiwaawan ni mu taxawee ci Tiwaawan ni taxawe ci Jàmmagën ni mu taxawee ci Kër Coon ni mu taxawee ci lépp yàlla yàlla taxaw ci moom jàppale ko ci barke moom Mohamed ay soxnaam nag ah force nga ne ajaratu Faat Jàllo kenn du moom Jàllo jéeri taxawaayam rafet na ci Alaaji Mudu Xulle jàppale na Alaaji Mudu Xulle taxaw na ay sœurs yi Alaaji Mudu Xulle ajaratu Mareetu Jóob kookoo tam bëgg na ay sœurs yu Xulle jàppale sœurs yu Xulle jàppale borom këram tegu ca nag sama doom sama doom di Adama Fall bëgg na borom këram taxaw na borom këram ñoom lu ñu am ak sama rakk rek yàlla na barkeel Mudu Xulle yàlla na ko barke baayam liggéeyu ndeyam gën a wallu ci barke na bi lu mu yor yàlla bu ca daray ordonnance bokk ci barke Seydina Mohamed kontaan naa lekk nañ ba suur naan ba mandi macha allah yéen itam jërë ngeen jëf yéen waa rajo Kees. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan yàlla yàlla bu muy sunu mujjanteelu gàmm di ñaan yàlla lépp lu waay def ci bis bii yàlla na ko yàlla ful. yàlla na ko yàlla barkeel yàlla mi nga xamante ni mooy may yàlla na nu yàlla may gudd fan ak wér di ñaanal nag alaaji Modou Khoule mi dama koy ñaanal duma ko gërëm di ko ñaanal yàlla na dund ba njabootam gi di ko aw yàlla na dund ba toog ne le njabootam gi di def lépp loolu rek laa koy ñaanal di ñaan yàlla nag sama njëkk yi yàlla ma yàlla bàyyeeg ñoom macha allah yàlla yàlla bu seytaane dox sama digganteeg ñoom yàlla bu sama digg seytaane sama digganteeg nit ñëpp maa ngi nuyu sama sœur yi di nuyu sa ñëpp macha allah kontaan naa trop gan ñi kontaan naa ci ñoom ndax bàyyi dal ñëpp ñëw ci sunu dal bi mënuñu leen fay mënuñu cee fay kenn ndax lii dafa neex woote rek ñu wuy si la lii dafa neex macha allah yàlla nañu yàlla musal ci jàngoro ji nga xam ne moo taxoon mënunoo gàmm yàlla nañu ci yàlla musal yàlla na fi gëj yàlla na fi dañ ba set wecc arrêté waa li ma ciy wax nag ci affaire sociale bi Modou mi ngi faj ay malaat te wax ko kenn Modou mi ngi joxe ay nat te télé jëlu ko li muy def ci suuf moo ëpp fuuf macha allah te nag def ko jëkke ci ay mbokkam macha allah. man dama koy ñaanal rek ndax wax lépp sax da ngay nit ki waaye dama koy ñaanal doom yaa ngoone jóg ji yal na ko yàlla la fal cat yal na ko yàlla musal yal na yàlla may ko gudd fan ak wér yal na projet am yëpp egg yal na dund ba njabootam bi ko aw kontaan nañ ci moom torop torop torop di mbokkam di jaambur yi di waa koñ ba ñëpp ñëpp macha allah Maodo Khoule defe na ni ku jóg rek daf la war a dimbali waaw mi ngi faj malade yi di berndeel nit ñi ci loolu rek la dëkk këram sax nii la fay def këram sax boo fa egsee nii rek lay def waaw social moom beralu ko kenn malaat yi nag ñoo ci rawati wallaahi malade yi ñoo ci rawati maa ngi koy ñaanal bu baax a baax ma di ci yokk nag it macha allah mu wutal ma soxna yi nga xam ne nag bi nu ñëwee danoo topp sama ginnaaw ma boot ñëpp man maay bàjjenu xale yi man du ma wujj du ma dara maay bàjjenu xale yi ma di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko njabootam mareetu mooy ñaareelam mi ngi fii ci biir gàmm bi aadama mooy caat macha allah waaw moom tamit def na participation lool ci gàmm gi ñoom tamit ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla bu seytaane dox sama digganteeg ñoom sama rak yi yàlla nañu yàlla jubóole ci jàmm. waaw auzu billaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo maa ngi sant samay mag di sant sama rak di sant suñu aw Adja Faat di sant Moodu mi nga xamante ne nii mooy borom kër gi Moodu ñun jooyuñu suñu yaay. ndax Modou dañoo dimbali ci lépp waaw xam nga ki la ki la yóbbu Màkka moos deseelu la dara bàyyi asalaamaaleykum man la Néné Faye dëkk HLM Rufisque ma nekk magi yaayu Adama Fatou Kiné may magam waaw suñu doom Adama Fatou di sëy moom ñu ñu ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm di sant di xule di ko ñaanal li ñuy wax rek moom la ñuy waxaat Khoule mi nee naa ku koy bi ñuy wax si moom duñ duñ ci jóge waaw nee naa gis naa ku baax ba sonn mais ku baax ku mel ni Khoule mi bu su ma gis amul fen dañ koy ñaanal gudd fan ak wér lépp lu mu mën yàlla gën koo yokk kii moom suñu xol dafa sedd si moom ba léegi rek ñu koy waxaat léegi pël bii toog lu ne wax na ko lu ne lu ne ma ne képp ku yàlla boole moo du xulle mi rek santal yàlla ndax nit ku baax la dina la tete dina la wan eh, yoon bu baax dina la waar dina la reetaanloo dina la bégal ba sa xol sedd doomeel mukk foo ko gisee rek si xol sedd na baax na baax boo xam kenn mënu ko kenn mënu ko natt macha allah dañ koy ñaanal li mu mën ren day day gën a yokku rek ndax day def te yàllaa tax li muy def nii yàllaa tax mu di ko def yàlla ak doomu aadama du ko mës a ñàkk waaw vraiment kontaan nañ si moom kontaan nañ si moom trop. Euh, waa Actu Thiès maa leen di nuyu di leen ziar di leen bége bu baax a baax a baax a baax yàlla di leen ziar si gàmmu gi euh, yàlla na yàlla. defal ñu jàmm lépp lu ñu ñaan si gàmmu gi yàlla nañ ko yàlla nangul yàlla defal ñu jàmm defal ko mboolem jullit euh, man may Pape Ndiaye mun naa ne di xaritu si Modou Khoule mais nekk conseil municipal commune bu Sangal Bambilor euh, yor nekk président commission domaniale euh, tey nag dama ñëwoon jaar fi doon seet sama xarit bi nga xamante ne mooy Modou Khoule di ko ndokkel si gàmmu gi Euh, mu nekk sama xarit nag sama xarit la ba nga xamante ne bu bu yàgg la du tey euh, ñu am ay relation personnelle ya nga xamante ne am nañ ko man ak moom loolu du tey démb la mu nekk sama nit nag jàppale ma lu bare bare bare bare bare bare si li nga xamante ne si loolu laay yëngu ci lu bari sama xarit la mun naa ne séq nañu la lu nekk séq nañ ko man ak moom euh, daf may encourager si lu bari ci àdduna daf may jàppale ci lu bari ci àdduna Euh, mun naa la wax acte yi nga xamante ne rek posé nañ ko si sama diggante man ak moom première oto bi ma njëkk a dawal moom moo ko jëndee quatorze millions may ma ko moom moo du xule jënd ko quatorze millions may ma ko baneen bi nativa bi mu mujj di dawal tamit moom mooy jël nativa ba nga xamante ne jar na huit million tamit encore may ma ko lépp lu nga xamante ne lu may dugg rek loxoom moom mu ngi ci biir lépp lu may dugg loxoom mu ngi ci biir Euh, dafa naa ne kër gi may tabax tey kër Marème Mbengue muy trois cent trente mètres moom mii moom moo ko yekki jox ma ko tey su ma doon lim li ma séq ak moom ak li nga xam ne def na ko ci man loolu lu bari la mu nekk sama xarit nag mu nekk nit ku am kóllëre mais nit ku mën a doomu aadama tamit nit ku mën a jàppale mais nit ku xolam set laab loolu moo ma moo ma moom moo li ma gën a frappé ci moom mooy xol bu sell bi ak laab bi nekk taalibe Cheikh piir nag booy seet taalibe rek boo gisee Modou Khoule la teyal nit ku baax la te relation bi mu am ak man particulièrement képp ku mu ku mu seqal tamit da ngay foog ni yow la gën a amal relation boobu kon nit la nit la ba nga xamante ne nit ku baax la ma koy gërëm di ko sant di gërëm nag ay soxnaama ah, di gërëm ñëpp euh, euh, si soxna su mag si ki ci topp ak ki ci toppaat ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm kenn ku nekk di di la sant di la gërëm ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla ak njaboot gi mu am yàlla na yàlla barkeel njaboot gi yàlla na ko yàlla bàyyi ak sagoom yàlla na ko yàlla jàppale lépp lu ñu bëgg ci weeru gàmmu gii rek yàlla na ko ko yàlla defal ñu sant Euh, fi mu teg loxoom foofu la ndax Modou Khoule léppam àddunaam mooy liggéey ak jaamu yàlla ak dimbali doomu aadama yi na ko yàlla jàppale kon yàlla na ko yàlla suturaal merci beaucoup jërëjëf. asalaamaaleykum maa leen di nuyu di leen sant man laa jaam Mariama Khoule Mariama Khoule di soxna Alaaji Modou Khoule maa ngi kontaan ci gàmm gi nag bu baax baax baax. di kontaan ci mbégte mi di kontaan ci lépp di kontaan ci El Hadj Modou Kounda di fa ñaanal yal ko yàlla may wér wér bu gudd fan yàlla sàmm sàmm njaboot sàmm ñëpp di ko ñaanal lu mu mën rek daal na mel lu ko ren gàmm gi kontaan nañ ci bég nañ ci kontaan nañ ci. El Hadj Modou Kounda nag lii muy def ci këram la ko njëkkee. ndax ma naan baax bala ko mën a def ca kër ngay jëkk moom social bi jikkewu ko fii rek à chaque fois boo ñëwee këram nii nga fay fekk moom lii la xam te def lu baax di wax lu baax loolu rek la xam moo dañ koy ñaanal rek lim man mën ren yàlla na mel déwén du ko rob li muy def yàlla dund ba ay doomam di ko defal kontaan nañ bu baax kontaan daan bég nañ merci beaucoup mam ba ko woowee mu mbay bu ñu jàqee mu jàll mbay bu ñu tiitee mu wàlluñu mam ba ko woowee mu mbay bu ñu jàqee mbay bu ñu tiitee mu wàlluñu mam ñu ko woowee mu mbay bu ñu jàqee mu jàll mbay buy tiite moo wéy mamba ka wéy moo wéy joggil siraan وانجك سير المجلل سيدي لك كوثرة نندل كوثرة غرجي كوثرة نندل كوثرة ممبي كوثرة نندل كوثرة لك كوثرة نندل كوثرة غرجي كوثرة نندل كوثرة لك كوثرة نندل كوثرة سمبونا له وقالوا سنة دبي فلاني مبي فلاني تكالي فلاني أقول قال لكم ببلي أنا مبي مال لكم كني دول مبي مال لكم كني دول bunu sagan ci Babakar bunu sagan ay bunu sagan ay bunu sagan walla bunu sagan ay bu nu sàggal nañ ziar bu nu sàggal ay bu nu sàggal nañ siño bu nu sàggal ay bu nu sàggal Tiwaawan la bu nu sàggal ay bu nu bu nu maa ngi nuyu di leen gërëm di leen sant man maay Sidi Ba xale du Mourou Koule wax dëgg la gàmmu bi neex na neex dara dara dara may ko moom moo dafa baax wax baax ma mënul wees yaa baax moo la ko moom lu ñu mën toog moom lu ñu baax yaa ngi yàq say wax te loolu moom ñëpp a xam Gamou daal vraiment Bordeaux ba léegi chaque jour ñu ngi fi guddeeg bëccëg suba ngoon waaw amul benn problème lépp mot na dara manqué wut man nag entrepreneur am la waaw bu ñu yàlla boole ba léegi man ak moom mosuñu am problème liggéey la xam wàcce toppatoo liggéeyam am amul soxla si si dara loolu liggéeyam ak këram ak waa njobootam njobootu keneen moo gën a njobootam baax na yiw na am na teggin am na lépp yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla lu mu ren yàlla na gën a mun ay ay gàmm gàmm gàmm gàmm gàmm ñay moom nañu ko ñaanal guddi fan rek mais ma kenn du ko ñaanal pour moom wax dëggal affaire am sotti na waaw jërëjëf waaw merci merci merci Moodu la nuy wayal indi arjo Baay Moodu la nuy bégal indi arjo Baay Moodu la nuy bégal indi arjo Moodu xule la nuy bégal bay Moodu la nuy be bay Moodu la nuy be bay Moodu la nuy be ku bëgg Sëñ Babacar la fay ku bëgg Sëñ Babacar la fay ku bëgg bay Moodu xul la sa la fay sopp bay mu duxul la sa loxo yi jaboo seeni loxo yi jaboo bay ma gi na baax na taalibe Cheikh loxo yi jaboo taalibe Cheikh la koy déglu taalibe Cheikh la koy déglu taalibe Cheikh la koy déglu ko bëgg Sëñ Babacar la koy déglu may ma gi da baax na may ma gi da baax na may ma gi da baax na ñu dafa sama wa akhiru di sopp sëñ Babacar jug leen taxaw màggal yoon jug leen taxaw màggal yoon ku bëgg sëñ Babacar la fay jóge taalibe Cheikh la fay jóge taalibe Cheikh la fay jóge taalibe Cheikh la fay jóge taalibe Cheikh la fay jóge taalibe Cheikh la fay jóge taalibe Cheikh la fay jóge ku bëgg bay mu duxul la sa lu sopp mbay mu duxul na sa la mbaye yëngal jamono mbaye yëngal jamono man mbaye yëngal jamono man mbaye yëngal jamono man mbaye yëngal jamono man mbaye yëngal jamono Mamba ya yëngal jamono Mamba ya yëngal jamono Mamba ya yëngal jamono Amaru tarika بطريقتنا نعم الله الله هو شيخنا الله هو أجمعون